en effet li ñu tijji woon mooy que dañoo amoon benn euh, campagne bi nga xamante ne dañ ko dawalal fii ci Sénégal et au niveau international ci biir euh, Amnesty International campagne bi ñuy woowee marathon des lettres c'est-à-dire ay ay ay pétition la yi ñuy pour pour pour ay nit yi nga xamante ne dañoo salfaañe seen ak ak seen yelleefu mooy de manière général leurs droits humains donc loolu moo tax tey jii ñu wàcc sur le terrain defoon nañ ay tournées universitaire donc euh, li ko dalee juróom ak juróom-benn université boo xamante ne ici à Dakar dem nañ foofu pour recueillir des pétitions signature yi nga xamante ne ay ay ay étudiants ñoo ñu ko ñoo ñu ko jox loolu moo tax tey jii ñu wàcc sur le terrain. donc tey ji mu coïncide ak li nga xamante moo di fermeture campagne bi quoi moom la campagne bi lañ doon tëjee quoi depuis le 26 décembre ñu ngi wàccoon sur le terrain pour récolter ay signature jëmm ji ñuy jagleel pétition bi moo di Saliou saar benn ndaw la boo xamante ne dëkk au niveau de Thiaroye dans la commune de Thiaroye nekk aussi koo xamante ne dafay yëngu ci wàllum élevage mouton donc ñu jiiñoon ko ci dafa sàcc benn mouton donc looloo tax ñu yóbbu ko au niveau de la police de Thiaroye léegi ci biir détention boobu daf cee subir ay atrocité ay bavures policières yoo nga xamante ne dem na sa ba mu jural ko ci ñàkk ci bakkanam loolu moo tax tey jii nii donc c'est de situation yoo xam ne ñu koy déplorer bu baax parce que peut pas comprendre koo xamante ne dañ ko mettre en garde à lan moo war a tax lan moo war a indi fee yooyu noonu ñu war ko mën a maltraité ba mu ñàkk ci bakkanam donc loolu moo tax tey jii nii ñu wàccoon sur le terrain pour accompagner sa famille parce que famille bi bëgg na xam exactement lan moo rey kii di Saliou Sarr doom la peut-être ci ñenn ñi frère la ci ñenn ñi donc loolu moo tax ñu wàcc sur le terrain pour solidariser ci geste bi mën a récolter ay signature pour mën ko jëbal au niveau du ministère de la justice. mi ngi faatu ci 2019. au niveau de la police de Thiaroye foofu la ñàkkee bakkanam donc ginnaaw bi mu subiree li nga xamante ne moo di atrocité ak bavure policière yi ak torture yi de manière dañ ko torturer ba mu ñàkk si seen bakkanam seen loxo donc ñu ay ndaw lañ donc suba ëllëg mën na doon man wala doon keneen donc loolu moo tax ñun dañoo maanaam dañoo adopté combat bi maanaam bokk nañ ci Amnesty International bokk nañ ci ndaw yi ëllëg ñun ñooy doon mag yi Amnesty peut-être mais bëgg nañ tamit su protéger suñu bopp protéger suñuy frère parce que wàcc sur le terrain mener le combat là ëllëg man su ma nekkee en danger aussi ce sont même mêmes la là pour pourront porter ce combat à ma place donc loolu moo tax tey ñii ñu wàcc sur le terrain pour mën a dimbali kii nga xamante ne moo di suñuy frère Saliou Sarr di leen wax ni que nañ muñ vraiment parce que nu sommes dans un pays boo xamante ne lii nga xamante ne moo di bavure policière vraiment war nañ ko mën a dépasser dans un état de droit donc lu lu mën a ñàkk la ci réew mi li nga xamante policiers yi suñuy frère lañ donc lan moo war a tax ñuy subir yenn atrocités yi envers nos envers leur famille quoi parce que on a une famille